asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki M Media Group Nourou Darayni ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonente boobu sallallahu alayhi wa sallama gën a sell ci nooyu mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen ndokkeel di leen ziyaare ci weeru màgg bi ñu nekk waaye tamit di leen ndokkeel ci guddi bu sedd bi ñu jàll muy laylatul xadr gi yàlla dimbali ñu ba ñu doon ci jéem a góorgóorlu ci wàllu màggal ko yal na yàlla nangu lépp luñ ci def ci jaamu yàlla rek te nangu ñu suñu jaamu yàlla yépp di leen nuyu bu baax a baax di jël nuyoo bi rek di ko teg ci loxol kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jot leen ñu ko mbokk yépp rek su ko defee ñuy ziyaare ñëpp daal góor ak jigéen ñëpp ñu ne ci biir liggéey bi rek di doleete sant yàlla bu baax ci baaxagum ñu baaxe ba liggéey bi ñu nekk ci biir di ci jéem nam na bi di jéem a góor di diglu ak taatan ak di jéem euh, di ci jéem a jàllale dara léeg-léeg loolu sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax di ci ndokkeelu mu dungom ñëng bu baax a baax a baax mu ñu baaxe ba euh, bool nañ ci liggéey bu sell bi ñaan yàlla daal euh, liggéey bi yàlla nañ ci yàlla gën jàppale gën a cee taxaw ba ñu am ci lu kawe suñ jot ba fépp fu ñu bëgg mu àgg fa rek ci kawe ak ak yaatal ak ak yokku rek ak lépp lu ko mën a jàppale rek am nañ ko yàlla jàppale la jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon su ko defee tey dañuy ñëwaat ci liggéey bi rek donte tey ji moom fekk nañ ñu xaw a xat loolu waaye nag dañ ci jéem a ba ci laaj moom lu ci mën suñu kenn dalay kat rek ñu jéem koo jàllale su yàlla dogalee mun tamit itam li ci des xam naa ñu ñaan yàlla bàyyi ba beneen rek jéem koo àggal bi jëy Seydina Muhammad su ko defee laaj bi ñu jëkk am tey rek mu ngi jógee ci suñu mag ji muy sëriñ Ndiir euh, Touba Mbusa Ndiir euh, ñu di ko nii bu baax a baax di ko ziyaare itam di ko ndokkeel bu baax a baax moom itam wax dëgg yàlla ci taxawaay boo xam ne bii wax dëgg am na ko ci liggéey bi ak posté bu mu ci ak bëgg bu bëgg bu mu ci am ci ko xamoon ci muy bëgg lu baax rek saa su nekk di ca nekk di ca yëngu di ca wax di ca dox ko defee itam ñoo ngi koy ndokkeel bu baax a baax a baax di ko xamal ne daal euh, taxawaayam rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax baax ñoo ngi ci ziyaare itam di ko ci ndokkeel di ñaan rek yàlla doon nañu jàppale bu baax a baax bu dee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bu ko defee euh, comme suñu fatwa yi doon jàll da cee def euh, taalix bu am solo boo xam ne bii loolu soxna si doon laaj ci wàllu julli mu defaat ci ak leeral waaye tamit jàngalaat na ci lu bare bari loo xam ne li wax dëgg yàlla euh, ñun dañ cee yokkoo dañ cee jàng bu baax a baax ndax xam naa bu ñu doon dilluwaat euh, bi may tontu laajamee comme yooyu nit ñi def ci ginnaaw bu ñu jullee pare soxna si dafa ko laa ne ndax loolu moom dafa lu ñu may la lu dagan la wala lu araam la yaakaar naa bi ma koy tontu dama ko ne loolu moom defe naa du araam ndax mën naa am moom lañ cey jublu lu baax lu baax dong la ndax xam moom dafa yaatu kenn koo xam ne ki da ngaa peeg lépp amut gis nga kon loolu mu ci dikk andi ko ci leeral ko ci dolli ko ci lu ama am solo luñ ci dolli ko la wax dëgg yàlla te mu jële ko ci cëslaay yu wér yoo xam ni maanaam mënees na caa sukkandiku mu doon lu baax loo xam ne bii ku ko xam rek maanaam mën koo jëfandikoo loolu lu am solo lay doon teew kon foofu it ñoo ngi ko fi gën a ndokkeel a xam ne liggéey bi moom lu mel noonu rek lañ ci séntu lépp loo xam ne li daal nit xam na ko ci ci loo xam ne li lu mën a yokk ab jullit la ci lu baax ci jaamu yàlla euh, nga dugal ko ci tàbbal ko ci leeral ko ci euh, loolu da ci am solo bu baax a baax kon loolu laa mën daal bala ñoo dugg ci laaj tey moom loolu moom dinañ ko ci ndokkeel bu baax a baax te xam ne loolu moom lu ñuy séentu la lu ñuy bëgg la lu ñuy nég la itam ci biir liggéey bi kon jërëjëf yàlla yàlla fay jërëjëf Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon sang boobu muy sëriñ biir moom dafay rëtal ñaari laaj yoo xam ne daanaka laaj yu mën a ànd la ndax dafay laaj ne allazina zaamu annahum ulama wa yantaxiduuna baada suufiyina wa yunsibuna ilayhim shirka dafay am ñoo xam ne nii dañ la ay boroomi xam-xam lañu waaye tam booy xool mag ñi nga xam ne ñi yàlla da leen a dimbali maanaam ba ñuy dund sharia ci réew mi doon ay kilifa yoo xam ne kilifaay diine lañu te ñu xam ne kilifaay diine lañu ñuy dund diine jooju saa su ne nga di ko gis ci seeni wax ak seeni jëf yépp euh, am ay jëmm yoo xam ni daal ñeneen ay borom yu xam-xam nañu waaye booy xool euh, ñooñu am nañu ne ci réew mi wala ñu nekk bitim réew maanaam am yu bari yu ñuy def yoo xam ni maanaam dañuy dem bana am na ñoo xam ne euh, dañuy bokkaale waaye tamit dem ba ci naan am na yu baree bari yu def yoo xam ne maanaam ay biddaa la waaw loolu de xam na buñ koy xool moom loolu lu wér a wér la lu am la ndax suñu réew mi moom loolu dañ ko fi seetlu bu baax a baax dañ ko fi dégg bu baax a baax di ko gis itam bu ko defee lu mel noonu moom euh, lu jara moytu la lu jara bàyyi xel la ndax euh, am na yoo xam ni ku koy diglu nit di ko wax ba tax nga sukkandiku ca ba tax ngay xaw a xeet mag ñi wala nga di leen suufeel wala nga di leen askanale yenn yu doy yi mu lu mel ni ak bokkaale yàlla sax ni mu rëyee ak nga ne dañuy nekk ci ay bidaaw yooyu moom loolu lu doy waar la loo xam ne euh, jëmm waru koo xalaat ndax defe naa mag ñi xam ne ñi ñoo fi ràññeeku ci réew mi bu dee ci réew mi la liñ leen xam mooy euh, euh, dundal diine lislaam di ko yeesalaat di ca yokk lépp loo xam ne bi maanaam luy mën a gën a dëgëral jaamu yàlla gën a kon defe naa kuy wëlbatiku ne boroom a xam-xam nga di dal ci seen ngaw di xeeb loolu ñu def ba tax nga naan dañuy bokkaale wala ay bidaa la ñuy def loolu moom day mel ni xam-xam lay doon boo xam ne bii day méngul la sëñ ba waxal feen rek ne al ilmu in lam yahdi shaxsan lil huda fa innahu yaquduhu ila rada xam nga moom suñu noonu la ñaar rek xam-xam bi xam ne bii boo nit ki xamee da koy gindi teg ko ci yoonu njub ak xam-xam boo xam ne bii mën naa tax nit ki jubali di nef di def di wax loo xam ne bii tegul ci yoon lan la wax ne xam daal bu fekkee ni gindiwut boroom moom am xam bi jëmale ko ci am njub xam-xam boobee euh, ci ak jubadi rek ak ak alkaani la koy jubale kon defe naa ñiy xalaat loolu ba di ko wax ba di leen ko askanawee maanaam man moom damay jàpp ne rek kon xam naa day mel ni dañoo bëgg aw ci seen xam-xam ko dañu bëgg a awale ci yoon woo xam ne bu yoon wu jub yoon woo xam ne dañu jëm ci ak alkande euh, jëmm yi fii ci senegal booy xool ñi tax dëgg-dëgg ñu di ko wax yàlla dafay wax ci seen i àq ne ala inna awliya allahi la xafun alayhim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fi l xayaati dunia wa fi l laa tabdila li kalimatillahi zalika huwa alfawzu alazim wala yaxzunka qawluhum inna al izzata lillahi jamian huwa samiu alalim dégg nga yàlla dafay wax ne na ngeen xam ne ñi nga xam ne ñi ay nit yàlla lañu ay xarit yàlla lañu mooy ñi ko gëm dañ ne képp koo xam ne kii maanaam ab jullit nga rek maanaam ci ñooñu nga bokk waaye nag daraja yi ñooy wuute te maanaam nañuy wutee ci jaamu yàlla ga nañ ci dàqa jaamonte yàlla ci lañuy ëppante daraja ba tax am ñoo xam ne ñu dañ ci ràññeeku bu baax baax ci wali yooyu ñuy wax su ko defee ne ne ñooñu nga xam ne ñu nekk ñoo fi nekkal yàlla nekk ay xarit la nekk ñi koy dàqa jaamu ndaxte yàlla dana inn akramakum indallaahi atqaakum looloo tax daraja yi di gën a ko wante ne ne ñooñu day laa xaw alayhim wa laa hum yahzanuun ne ne bu ñu fi jógee fañ jëm duñu am lenn luñ fay ragal te li nga xam ne maanaam njaboot gi nga xam ne gi moom la ñuy bàyyi seen ginnaaw it duñu am luñ cay jàppaloo xam ne lii dañuy ne foofee sa barsaax maanaam di ci am jàqare ci ñoom kon day wax ne fañ jëm daal mu àllaaxira duñu am lenn luñ fay tiit ak luñ fay ragal waaye liñ bàyyi seen ginnaaw seen njaboot gaag yooyu duñ ci am lenn luñ ci jàpp ak tiit ñooñu rek yàlla da leen a wutal nan la mel maanaam jullit bi ne la def ba maanaam bokk ci ñooñu nga xam ne ñi noonu la ñuy mel yàlla da leen wutal aw melokaan mu ne si allazina amanu wa kaanu yattaqun mooy ñi nga xam ne ñi gëm nañu te foo leen fekk rek ñuy ragal yàlla la ñuy doon leneen ñooñu de euh, fii ci dund ak àdduna gi dañ fi am mbégte waaye tamit bu ñu demee foofee la seen mbégte li gën a bare su ko defee comme loolu muy wax nga xam ne am na ñoo xam ne dañ leen di xeeb di leen jam di leen askale loo xam ne luy maanaam nekkuñu lu mel ni du bokk ak bokkaale kay ay bidaa yu ne ne loolu la wax ni yonente bi ne ko wala xaw lu wax jooju ñuy wax bu la ci dara jàq bu la ci dara nit yi ndaxte innal izzata lillahi lépp loo xam ne luy terangale la rek yàllaa ko moom moo ko yore di ko séddale te mooy seet ki ko neex mu jox ko ko kon loolu lu yàlla def la loo xam ne lii pexeem doomu aadama ak waxe doomu aadama ak difi doomu aadama mënu ca dara teraanga jooju nga xam ne ji moom la yàlla defal ndax dañu ko mérité woo te muy dañoo nekk ñu ragal yàlla ba yàlla di leen defal teraanga jooju daal ne ne yàllaa ko moom euh, loolu yoonu mbindeef nekku ca bu ñuy xoolaat itam ngir ñi mën a bañ a diglu seen wax yooyee bañ koo gëm xaadimu rasul dane inna allazi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afnal funun ki nga xam ne kii daal ragalut yàlla bu jàngal li wàllu xam-xam bi yépp ba mu jeex muy fànni xam-xam yépp mu jàng ba jeexit kooku dañuy jàpp ne ku amut ab xam-xam la ndax ab xam-xam li koy wéral dëgëral ko nga xam ne kii boroom ab xam-xam la mooy ko xam ne kii ku ragal yàlla la ragal yàlla nag maanaam buñ koy wax wax maanaam dañ ko natt ci nit ki maanaam mu ragal boromam ca la nga xam ne lii moom la ko boromam sant mu nekk ca waaye tamit di moytu ya nga xam ne yii moom lañ ko tere waaye tamit bokk na ci ragal yàlla bindeef yi nga xam ne yii ñoom la la yàlla boole na ak yi nga xam ne yii moom ngeen seq maanaam nga di ko sàmba doo ci jalbati dara doo tooñ kenn ci bindeef yàlla yi doo ci jël di ay wax yu ñaaw wala ay xalaat yu ñaaw maanaam di ko teg ci seen kaw ba tey daal di waxoon ne la ma waxoon fa ne rek euh, xaala sallallahu alayhi wa yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharraman baynakum fala tazalamu boo koy xool dafay mel lool day bëgg a dellu sax ci ak tooñ te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci benn xadis boo xam ne bii xadisul si lañ koy tuddee mu ne ñu ngi ko jële ci yàlla yàlla ne yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi yéen sama jaam ñi na xam ne man yàlla ci sama bopp dama araamal ak tooñ ci sama bopp maanaam yàlla dana duma tooñ kenn te ko gis ko moonu bind moonu moom dana ak tooñ dama ko araamal ci sama bopp waaye tam nee na bi ci sama bopp wajaatuhu muharraman baynakum dama ko araamal ci yéen itam yéen sama jaam yi kon li leen di dénk mooy falaa tazaalamu bu leen di tooñaante kon loolu buñ ci sukkandikoo euh, am na yoo xam ne yi daal lan war mooy maandu moo war képp ku mën a doon soo mënta wax ci moom loo xam ne lii lu baax la nga jéem a euh, maandu ci ay mbiram noppi ca waaw bu ko defee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxam ne man aada lii waliyan faqad azantuhu bil harbi mu waxaat ci beneen xadis boo xam ne bi xadisul xursi la ba tey yàlla wax ko ne ko man aada lii waliyan képp koo xam ne ci noonool na ma Euh, ab waliyu te mooy ab xaritam mooy ab jaam bi ko ragal ne ne faxat azentuhu bil harbi nga xam ne déclaré déclaré naa ko guerre maanaam moom man yàlla xeex ak moom te yaakaar naa moom képp ku mu jàkkaarloo bi xeex yow def na euh, doo ca mën a mucc doo ne ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yawmal qiyaamati daa di waxaat ne na ngeen di moytu ak tooñ na ngeen di ragal ak tooñ ndaxte ak tooñkat koo xam ne kii da ngay tooñ tooñ googu ngay tooñ bu bis penc ba ay lëndam lay doon yoo xam ne bi nekk ca kanam kay tooñ du mën a xam fenn fu muy aw ak lenn lu muy def nekk ak jaaxle gu réy réy ne fii euh, moom la fay jaaxle ngir biir lëndam yooyu muy nekk waaye dafa waxaat na ne min xosni islaamil mari tarkuhu ma la yaanihi dina bokk na ci li nga xam ne lii dina rafetal lislaam nit ki lépp loo xam ne lii aw yoonam néew ca mu euh, bàyyi ko bañ caa dugg bañ caa wax kon yooyu nga xam ne mën nañ ne ñu euh, noonoo mag ñu baax ñi rek ñoo koy xalaat gëm ko ma xam naa mën naa ñu gëm ko ak di ko dund ba tax ñu di ko wax moom ñun daanaka jëriñu di koy diglu ndaxte yàlla moom li mu dogal dogal na ko ba pare te kenn mënu ca dara diineem ji moom xaw am ñu ko fi nekkal ñoo xam ne nii ba bés penc ba bu kere àdduna yi tukki dañ ko fi nekkal tayit yéen yonente yi dañoo amoon ay noon ñu di leen kontar rawatina si Muhammad li nga xam ne nii moo ci kon keneen jaar nekkal fi xam nga ne loola moom ci am mucc waaye nag danoo war a gëm ne lii nga xam ne li moom la Xaadimu Rasuul wax dañ muy lu wér loo xam ne bi dañ ci jàppee yooyu daanaka jëriñu koy diglu ak di ko gëm ak di ko topp mooy xaadimu rasul dane bu man lam yuhibbuni ala wajadin wala yuraaxuna ma raamu wala baaba dane xol yi ñëpp ñi nga xam ne ñu bëgguñu ma de soppuñu ma dane saasu na ci njàqare la ñu nekk tey du ñu am mukk du ñu daje mukk la nga xam ne ñu sàkkoo waaye tamit du ñu am benn bunt boo xam ne fa la ñu jaar bala nga xam ne lii moom lañu bëgg ñu mën ko def mu sotti loolu defe naa su loolu xëyee mi ngi gën a Euh, ñi nga xam ne ni bëgguñu ko ba euh, contre ko euh, di ko weddi dëkk ci askan ay doywaar yooyu nga xam ne nii moom lañuy wax ne ne seen xol ba du dañ mukk ci nekk ci njàqare ndax suba bu ñu xëy rek di gis ak yokkute ci moom loo xam ne nii mooy tax seen xole maanaam tàggoog njàqare kon defe naa loolu dina doy ci ñu bañ a jublu yooyu nga xam ne ñoom moom la ñuy wax ak di ko askanale mag ñi nga xam ne ni maanaam dañuy liggéeyal islam su ko defee it dafay laaj ne dañu naan daal euh, bokkaale yàlla euh, ak bokkaale maanaam yàlla du ko jéggale du yem foofu rek waaye foofu liñ ko fi wax mooy maanaam foofu du yemukaay bi maanaam dañ ko war bi gën a leeral bu baax a baax a baax dégg nga euh, dañ ne inna allaha laa yaxfir an yushraka bihi wa yaxfir ma duna zalika liman yasha yàlla du jéggale bakkaarab euh, kuy bokkaale ak moom waaye beneen bakkaar bu mu doon su ko neexee maanaam mu jéggal ko euh, ka nga xam ne kii moo ko def loolu liñ ciy leeral mooy mu war di leer mooy bàkkaarab bokkaale bii yàlla na du ko jéggale du ko jéggale mooy ki ko def ba pare euh, te tuubu ko waaye ku bokkaale yàlla su tuubee euh, yàlla dina ko jéggal bàkkaar yi nga xam ne nag dane mën na koo jéggal ku ko neex mu dut ak bokkaale mooy bàkkaar yi nga xam ne yi doonut ak bokkaale yooyu dañ na yàlla su neexee jaam bu bu ko jaam defee te tuubu ko sax yàlla ci coobareem mën na koo baal doonte tuubu ko rawatina nag bu ko tuubee loolu moom mooy wa yaxfiru ma duna zalika li man yasha mooy bakkaar yi nga xam ne nit ki ko defee su neexal yàlla doonte jàmba tuubu ko it mu jéggal ko waaye nag bàkkaara bokkaale la moom mënu koo baal koo xam ne fii tuubu ko kon bàkkaara bokkaale ku ko tuubi itam Euh, bàyyi ko rëcc ko euh, yàlla dala koy baal te it mooy bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ne fattaa'ibu mina zanbi kaman laa zanba lahu ki nga xam ne ngi nekkal di def bàkkaar bokkaale bu mu mën a doon bu mu a doon bu dee bokkaale bu dee beneen la ne ne bu ko tuubee mu ngi mel ni maanaam amatul benn bàkkaar boo xam ne bii ñu ngi koy topp ca ñu ngi ko koy topp kon defe naa mën nañ ci jël ay misaal yu baree baree bari nga xam ne ak bokkaal la fi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laataa mu fi ñëw dafa tasaaroo woon lool ci kaw suuf rawatina maanaam mën nañ ci jël dëkk bu mel ni makkatul mukarramatu bi nga xam ne bii fa la sayyidina Muhammad dëkk eh, te ñu yebaloon ko fa yónni ko fa mu xam ne defe naa ñooñu kenn gënu leen a nekk ay bokkaalekat kenn gënu leen a nekk ay yéefar waaye defe naa eh, ba Seydina Muhammad ñëwee nga eh, am ñoo xam ne ñi ñu nga nekkante ceddu ga maanaam doon bokkaale yàlla di jaamu ay xërëm eh, ba ñu duggee ci lislaam tuub bokkaale ko ñu doon bokkaale yàlla da ko da leen ko baax su ko defee fa naxudu misaalan min baadi man daxalu fi l islam wa kaanu shirka mithla sayyidina omar nel xataab radiallahu anhu anafana bihi ne ne fi nu mën a sukkandiku ci xam ne Dakar bokkaale yàlla da koy jéggal ki nga xam ne kii tuum na ko mooy mën nañ ko jël ay misaal rek ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bokkaale lañ leen di jaamu ay xërëm waaye bi lislaam duggee ñëwee ñu dugg ci lislaam tuub yàlla na leen a jéggal ba ñoom euh, diineel islam ji nga xam ne ñi noo ngi koy dund ba léegi te mooy nekk ci kaw suuf ba kera addunay tukki ñoom bu doon ten ñoom kon islam ji du dem nga xam ne ku mel ni Seydina Omar ibnul Xataab radiallahu anhu nga xam ne moo doonoon jàmbaar lool ba mu nekkee ci cat ba nga nekk jàmbaar lool doonoon ki nga xam ne kii moo gënoon a jaaxal yonente bi ak ñi nga xam ne ñi dañoo gëman ci jamono yooyee ba tax yonente bi sallallahu alayhi wa doon ñaan yàlla na ko allahumma ayidil islaama bi ahadil omarayni omar ibnu xataab aw omar ibnu hisham nga xam ne yàlla dafa dem ba ñaan yàlla na ko yàlla daal maa ngi lay ñaan nga nga dimmal lislaam dooleel ko ci kenn ci ñaari omar yi dugg ci lislaam gis nga am ñaan ni mu na solo da koo ñaan ne ko ñaari omar yi daal muy omar ibnu xataab ak omar ibnu hisham te omar ibnu hisham mooy abu jahlin maa ngi lay ñaan kenn ci ñoom ñu dugg ci lislaam ngir dëgëral islam gis nga ko yàlla daal di nangu ñaan nga daal dugal Seydina Omar ibn Xattaab ci biir lislaam waaye gis nga Abu Jahlin moom gis nga ko ba mu bañee làng continuer gis nga ko Seydina Omar dugg ci islaam yàlla jégal ko lépp loo xam ne moom la doon bokkaale waaye gis nga Abu Jahlin topp mooy yàlla ga ak bokkaale yàlla ga ba faatu ca gis nga fa ko yàlla mu jëmuy comme abu lahabin sax lañ koy wax muy gën nga ba yàlla wàcc ci saar woo xam ne da koy tëkku muy tabbat yada abi lahabin wa tabba ba saar wa kon nga xam ne euh, bokkaale ku ko ko euh, yàlla dana koy baal nga xam ne mooy saanil xulafa ar euh, nga xam ne <coughs> bokk na ci ay darajaam bi fii sayyiduna Muhammad jógee wàcc ak liggéey ki jëkk a nekk am xalifaam wala ñeent ñi nga xam ne ñii ñoo jëkk a nekk ay xalifa am nga xam ne ñoom lañu tuddee alxulafa bi muy xalifa yu jub ya nga xam ne yii seeni jamono benn jafe-jafe amu ci dañu doon dund lislaam bi normal comme ni fi bi fi yonente bi nekkee nga xam ne euh, moo ci jiitu woon bi jiitoo jëfee Seydina Omar ibn Xattaab moo nekk euh, ñaareelu xalifa ba nga xam ne kon kooku euh, yàlla defal na ko dara ji ju réeréer yi ci Euh, biir islam bii ndax gis nga bu ñuy jàng lenn ci mbindam sëñ sëñ bi dafay wax ne euh, waxuwal mu timu zawil islaami yowma hada miiman bihi kaana lil islaami zaharu wa yowma aslama jibrilul aminu ata bi isni man huwa fawqal kulli qahaaru mualliman anna islaam al fata omara bushra li ahli sawal kullu yaxtaar nga xam ne lii xaadimu rasul wax ci Seydina Omar ibnul Xattaab mu ne waxoon mu timusayul islaam yi ne ne moom mottali woon ña xam ne ñi ay jullit la ñoon ca jamono ja muy tuub di dugg ci lislaam bés ba nga xam ne bi yàlla gindi na ko maanaam mu fekk fa fanweeri jullit ak juróom-ñeent maanaam mu mottali leen ñeent fukk te ne ne euh, bés boobu nga xam ne bii euh, ci la moo moo moom Omar dugg ci lislaam ne bés booba ci lislaam yëkkati ko gën a siiw ba àgg fi nga xam ne fii euh, àgg na fa moom lislaam tey ne ne bés bi nga xam ne bii Seydina Omar dugg na ci lislaam euh, Seydina Jibril alayhi salaam yàlla da koo yebal mu daal di ñëw ci kaw suuf waaw yow ma aslama jibril aminu ata bi isni man huwa fawqal kulli qahaar yàllaa ko yebal ne ko demal ne ko ngir lan mualliman anna islaamal fata bu bushra li ahli sama wal kullu yaxtaaru ne ko soo demee nanga wax mu muhammad ak ñi xam ne ñi ay jullit lañu jébblu ne leen euh, xale boobu du piccam soosu muy sayduna omar booba gone la euh, jébblu gin jébblu dugg ci lislaam day waa asamaan yépp dañ cee dëkk te it euh, dugg ko nga xam ne gi dugg na ci lislaam waa asamaan yépp lu ñu tàmm la nga xam ne loolu Seydina Omar dong moo ko am bi nga xam ne bi dugg na ci lislaam bu daal di waxaat ne wallahu faraxa bil faruxi sayidina alxaq min batilin abdahu abdatuhu fujjaaru dana ne ah, loo tax ñu tuddee ko al alfaruq mooy ki nga xam ne kii da doon taqale diggante dëgg ak i fen maanaam ay caaxaan nga xam ne Omar saa bu ñu daan werante ci mbir su ñëwee day xool la ciy dëgg rek mu daa di koy teg ne lii ca la ñuy dox la di des ñu daal di koy sànni fale a taazaza diinullahi murtafian lahu fadailu anha kalat afkaaru ne na daal Seydina Omar nii ci moom la diine lislaam ji nekkee lu tedd ci la yëkkati ko ne na kon Omar mi daal am na ay ngëneel yoo xam ne yi maanaam euh, bari na bari waaye koo xam ne gi maanaam am xel mënu koo xalaat kon yaakaar na ku mel ni Seydina Omar saxaaba yooyu buñ jëlee eh, ay misaal ci ñoom dina doy sëkkani rek maanaam bàkkaar ab bokkaale yàlla du ko jéggale maanaam du ab yemukaay maanaam ku bokkaale yàlla soo ko tuubee jégglu ko sellal sa sa jaamu yàlla eh, ñu jéggal ko eh, ak ay bàkkaarab mm, bokkaale yàlla ko xam ne bii moom la doon def ndax da ne laqad waada allahu maghfirata yàlla na ne képp koo xam ne kii tuub nga naa la jéggal maanaam dig na képp koo xam ne kii tuub na ak njéggal wa aslaha wa aqlaa an kufrihi te bi mu tuubee mu nekk ci di def lu baax te it xam ne lii moom la doon def mu di bokkaale ak wedd yàlla mu bàyyi ko waaye tamit wa mahuma kanat zunubuhu azima mu ne lépp loo xam ne lii bàkkaar yi tolloon tolloon na na euh, sa yaxfiru lahu lahu yàlla dina ko jéggal su ko defee euh, xaala sallallahu alayhi wa sallam euh, yaa amara bna al aas amma alimta ana alhijrata tajubbu maa qablaha min azunub amma alimta ana al islaama maa kaana qablahu min adunub naa muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax omar ibn aas ne ko yow omar ibn aas xanaa xamoo ne gàddaay gi nga xam ne bi jullit nañ ko gàddaay dem mag gàddaay ci boppam ne ne ku gëm yàlla topp yonentam bi ba gàddaay mu ne lépp loo xam ne li defal nga ko ci ay bàkkaar yu jiitu gàddaay gi maanaam dinañ deneen la ko ca baal dinañ la baal ngir gàddaay gi xanaa ne lislaam gi nga xam ne bii moom la ñuy dund nii muy diine ji nga xam ne bii moom la yàlla bëgg nee képp ko ci dugg maanaam lépp loo xam ne am amal nga ko ci ay bàkkaar euh, da la koy raafal kon euh, loolu muy laaj lu am solo la muy dafay seetlu ne moom dañu yem ci rek ne bàkkaara bokkaale deesu ko jéggale déedéet du yemukaay kuy bokkaale su ko tuubee ak tuubam sell muy jaamu yàlla baña di ko bokkaale kenn dañu koy jéggal su ko defee it euh, bi ci toppaan muy wàllu biddaa bi muy wax moom ñenn ci mag ñoom li ñu xamee li ñu xamle biddaa rek ci lañuy sukkandiku euh, mu doon tislay muy ne ne al bidaatu tariqatun fi diini muxtariatun tudaahi shariyata yuqsadu bi suluki alayha euh, al mubaalaxatu fi taabudi lillahi taala ne ne daal biddaa daal ne nañ aw yoon la woo xam ne bii dañ ko def ci biir diine maanaam sos ko boole ko ci diine ji su ko defee loole ñu ca sos nag yokk ko ca maanaam luy niroog sharia la maanaam loo xam ne lii ak jaamu yàlla la nga xam ne lu xam ne lañ jublu ca yoon woowee mooy maanaam ka cay aw lam cay jublu maanaam yokk ak jaamu yàlla kon defe naa biddaa buñ ko jàppee nii maanaam nañ koy garaawale naan nangam biddaa nangam biddaa la am na yoo xam ne bidaa la waaye nag lépp lu bidaa képp koo xam ne kii da ngay xool ne sharia bii euh, dafa war a yokk lépp lu méngoog sharia ñu dëgg def ci ak jaamu yàlla moo xam ay wax la moo xam ay jëf moo xam ay béréb yoo xam ne dañ fay dem dafa yokk jaamu yàlla googu ne loolee moom la gis ne mooy bidaa te loolu bidaa la boo xam ne baax la ndax lañ cey jublu mooy euh, yokke ko bi nga xam ne bii moom la si na ma tëra te loolu defe naa ba yonente bi jógee ba tey boroom xam-xam yi fi jaar yépp defe naa ci loolu lañ nekk di fexe yokk maanaam jaamu yàlla bi lu lu ko gën a rafetal rek lu ko gën a mën a bari jëm loo ci def ci lu baax mu di ay tuyaaba yu dul ci loolu lañ nekk kon bu ko defee euh, loolu ci wàllu bidaa euh, mën nañ ko jàppe noonu bu daal di waxal ne amal maqsudu bil bidaati lati tuxaalifu xawaayida shari wa usuluhu fal maqsudu bil bidaati lati tuxaalifu xawaayida shari wa usuluhu dégg nga neneen liñ jublu nag ci bidaa boo xam ne bi nit ki da ko war moytu mooy boo xam ne bi loo xam ne nit ki da ko sos mu wuuteeg sharia wuuteeg cosaani sharia amma ma laa yu xaalifu shara fala sama bidaa nee nag lépp loo xam ne lu dëppoo sharia la wuutewut ak sharia euh, bu booba bu ñu jàpp ne la boo xam ne ñu jàppee ne bidaa daal lépp ak réer la bidaa yëpp demewut noonu mag dafay waxaat ci wàllu bidaa ne al bidaatu bidaataani mahmudun wa mazmumun fa waafaxa sunnata foofu mahmudun wa ma xaalafaha fa mazmumun dana sunna eh, dana bidaa ñaari façon yi bidaa la ñaari xeeti bidaa la bidaa boo xam ne bii mahmud mooy bu ñu sant la bu baax la ak boo xam ne bii dañ koo ŋàññi mooy baaxut daa di wax ne lépp loo xam ne dëppoon ak sunna eh, rek nañ jàpp ne bu dee lu ñu sos la loolu bidaa la boo xam ne bii bu baax la bu ñu sant la bu yàlla nangu la waaye lépp loo xam ne li dafa wuuteeg sharia nag ñu sos ko nañu xam ne mooy bidaa ba nga xam ne bii Euh, moom la ñu war a moytu jàppe ko comme bidaa kon euh, yaakaar naa bu ñuy xool euh, sharia yëpp yu bari yoo xam ne ji dañ ko ci yëngu ci loo xam ne li luy yokk jaamu yàlla gi rek la ci xeetu jaamu yàlla ñuy def di ko naafila yooyu rek la ñi nga xam ne ñi dañuy contre mag ñi di jël na nangam bidaa la nangam bidaa la waaye yooyu moom Euh, dafay doon loo xam ne di daal xam na ku ko mën rek da nga cay jéem a góorgóorlu ba loo ca mën a moytu nga moytu ko ndax yooyu moom ci baree bari dañ koy wax ngir yàqal di nit ki euh, pas-pasam la ak euh, wàññi ko ci wàllu jaamu yàlla googu ndax sariya moom jéem yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi nekkee moo ko yoroon boppam bi mu fi jógee am ñu mu fi bàyyee ñoo ñee am na luñ ca doon yokk waaye loolu itam mooy continuer dox ci àdduna ba kera àddunay tukki dinañu day saa su ne day am lu ci yokk loo xam ne dañ ko koy gën a bari la ngir gën koo mën a jaamoo yàlla gën koo mën a jegeñe kon laajam yooyu daal am na solo lool bu ko defee ñu jéem a góorgóorlu bu baax ba xam ne jamono ju doy waar la nekk yoo xam ne jii xañ na ku sab xam-xam dëgërul lool maanaam mën nañ la féewlu ba dugal la ci loo xam ne lii lu nekk loo xam ne lu gën ci jullit la kon yàlla ñaan doole dafa taw ci wàll boobu ba lépp lu ñu nar a yàq suñu pas-pas ak diine bii rek loola yàlla dimbali ñu ba bum ñu dal di jaay Muhammad sallallahu alayhi wa yeneen laaj ci topp soxna say juuf moo koy laaj ñoo ngi koy seer bu baax a baax di ko ndokkeel moom itam dëgg yàlla mooy ku bëgg lu baax la fii ci dëkk bi la dëkkandoo dal ko ba ngay bokk dëkk bi mu gisee ni groupe bi doxee wax dëgg yàlla ci bëgg lu baax rek dafa tax mu ne moom nañ ma dugal ci groupe bi bu ko defee moom itam ñu ngi koy bàyyi xel bu baax baax te mu tàbbal ci ay laaj ne dafa am daal ginaar goo xam ne ginaar gu jigéen la doon tëdd ci ngunoom mm, mu laajte ko laajte waaye xamut borom ginaar gi dem na ba euh, am na fa sax yeneen yoo xam ne yi maanaam ci moom la ñu sosoo maanaam lu mel ne ay seq yu mu amaat foofu maanaam maanaam ginaar gi daal gu jigéen la di nekk ci ngunoom ba far nen fa ba am fa yeneen ginaar yoo xam ne ne mi ngi ak moom ba léegi waaye tamit eh, laajte na yaakaar ne ndax maanaam eh, fala ginaar ga dëkk dem na fa laajte ko waaye gisut kenn koo xam ne kii eh, ne ko man maa moom ginaar gi muy laaj nag ginaar yooyu nan leen di def waaw bu ko defee dañ koy tontu rek mooy al masalatu tata'allaqu bil luqtati wa luqtatu tu'arrafu sanatan fa in urrifat sanatan fal laaqitu muxayyarun bayna an yaxfadaha li saahibiha aw yatamallakaha aw yatasaddaqa biha an saahibiha wa yakunu zalika eh, mawqufan ala ijazati saahibiha fa in radiya bihi waqaat sadaqatu anhu wa in raddahu kanat sadaqatu an waajid wa wajaba alayhi damaanuha lii mi laaj ni maanaam dafay doon loo xam ne lu aju ci wàllu for la maanaam for eh, nit ki bu foree dara dañ ko ne boo koy foree danga koy xamle dangay wax ne for naa dara am na lu ma for wax la mu la mu doon bu dee xaalis la nga ne for naa xaalis maanaam bu dee jur la nga ne for naa ak jur wax bu dee ay xar la wala ay bëy la wala lu mu doon comme ni mu waxee nii comme ni ay ginaar la dana da koy xam ne boo waxee ne nag ne for naa ko eh, léegi di diglu ba xam di nga gis borom wala déet diir boobu ngay toog nag di diglu ba xam da nga gis boroomam ne ne maanaam dafa war a am at maanaam da war a yor di ko laajte ba mat am at léegi nag su mateem at euh, nga di ko xamle ba matam at te kenn koo xam ne ki maanaam ñëw na man yow lu nga laajte man maa moom ne ñëw mi nga xam ne nii yaa for loolee téye ko am at dañ lay tànnaloo ci ñetti tomb yi ne nañ may nañ la bu ci neex bu la ci neex maanaam nga jàppe ko loolu nga xam ne moom nga for mooy bu la neexee nga continuer loolee nga di ko sàmm ne man boroom laa ko fi bàyyi rek bañ caa def dara muy benn bi ñaare ba bu la neexee te mën ngaa def si xol ab yéene yi maanaam bii daal léegi man boole naa ko ci sama alal maanaam moom ko wala ñetteelu tomb bi mooy maanaam nga saraxeel ko boroom su ko defee ne ñett yi daal ne nañ maanaam may nañ la nga tànn ci bu la neex boo ko xamle am at te gisoo koo xam ne kii ne ne maay borom mooy nga continuer di ko fa dencal ak di ko ko sàmmal bu dee la ñuy sàmm la bu dee la ñuy denc la nga denc ko bàyyil ko fa borom walla nga ne lii daal man boole naa ko ci sama moomeel maanaam maa ko moom léegi wala nga saraxeel ko borom su ko defee euh, soo ko saraxee nag bu fekkee ne koo saraxee maanaam ñett yi nag boo ci def bu fekkee ne da nga koo saraxe su borom ñëwee bu wéyalee sarax ba léegi moom moo moom yoonab sarax ba waaye su nee ni man kat sama yëf saraxewuma ko da nga koy xayma delloo ko la nga xam ne lii moom nga foram te yow sarax ba léegi nga moom ko su fekkee ne itam da nga koo téye sa alal itam ne lii daal man def naa ko sama moomee su borom ñëwee tamit da nga ko jox waaye itam bu fekkee ne da nga koo tegan di ko garde di ko ko sàmmali bu ñëwee da ko jox ala kulli xaal lii daal moom moom lay wax ci li nga xam ne lii moom la nit ki for su ko defee dañoo laaj sallallahu alayhi wa sallam ne ko su ila nabiu sallallahu alayhi wa sallam an il luqtati fa qaala arrifha sanatan fa in jaa saaxibuha wa illa fa sha'nuha biha eh, ifal biha ma tasha li riwayatin uxra anhu sallallahu alayhi wa sallam fa hiya maalullahi yutihi man yasha nee nag nee ak nag fi ñuy sukkandiku ci ñett yee mu la wax nga xam ne benn boo ci defit maanaam du dàqu mooy dañoo mas a laaj yonente bi sallallahu alayhi loo xam ne dafa réer yonente bi ne ne loolu réer maanaam xamle ko lu ma tam at mooy kon loolu la waxoon fi ne kon da nga koy xamle lu tam at bu fekkee boroom ñëw na nga jox ko ko waaye su fekkee boroom ñëw dina yow mi ko for nag yow la ñuy bàyyee mbir ma maanaam yoon bi sax daneen ñi mu wax a danañ def ca def ko nu la neex mooy ñett yema doon wax fee rek mooy nga saraxee ko ko wala nga boole ko ci sa alal wala nga sàmm continuer di ko sàmm téel ko ko ndax beneen xadis dafa ñëw ne fahiya maalullahi yuutihi man yasha li réer daal nga laajte laajte maanaam gisoo kenn koo xam ne kii ne ne maa moom ne ne alal joo xam ne ji alal yàlla la joo xam ne ji daa seet ku ko neex mu jox ko ko kon ci wàllu for daan noonu la fay demee boo ko foree euh, na nga ko xamle bu kenn ñëw jël si ko ba mu matam at ñettee mu la wax euh, nga seet bu la ci neex nga def ko te nu xam ne fii mujj fi ci yoon bi mujj waxee fii mooy fa fa hiya maalullahi yu'tihi man yasha bu fekkee ne gisoo kenn koo xam ne maa ko moom ne ne jàppale kon ne la loolu alal joo xam ne ji yàllaa ko moom jël ko jox ko ki ko neex beneen laaj la ci def mu ne dafay tàmm moom bu sangoo xam naa day sangu jàpp la xam naa dal di diwum mi leenu maanaam dog julli waaw loolu moom lu mën a nekk set daal di jàpp mi leen boobu ngay diw nga ci sa yaram daal di dem julli ji loolu mën naa nekk loolu lu wér la ba tey mu ne moom de dafa tàmm maanaam ay tàngam day metti saa su jullee it saa su julli rek maanaam day daal di tàllal ay tànkam daal ndax day metti lool bu sëlmalee rek moom daal di tàllal ay tànkam nee na loolu itam muy laaj ndax loolu moom mënees na ko def wala mbaa du yàqu julli ndax dina yàqu julli ga déedéet du yàqu julli ga maanaam julli moom saa boo sëlmalee rek maanaam julli ga jeex na bu ko defee tàllal googu muy tàllal tànk yi ngir ne moom day metti sax da doon fekk dafay fekk ni su demoon ba biir julli gi sax maanaam tànkam yooyu mënu ko bank kon day toog moom rek taalal ko tey julli kon dem dina ca góorgóorlu ba julli ba xam ne bu sëlmalee rek daal di taalal tànk bu booba loola dara newu ca euh, lu mën a nekk la incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah yeneen ji topp ba tey soxna Cubba Njaay soxna soosu moom ngi koy seer bu baax a baax di dëgg yàlla euh, soxna su baax waaye tamit euh, di jàpp ci liggéey bu baax a baax a baax euh, kon defee ñoo ngi koy siyaare di siyaare waxale ne mbokk yi soxna yi nekk ci biir liggéey bi yëpp moom tey ab laajam dafay wax ne moom daal dafa am genn kilifa ak mbàkke mbàkke goo xam ne gii da ko bëgg lool xaalat innaha tuxibbu sëriñ mbàkke soxna noo xubban jamman mu ne daal kilifa googu fi nekkan muy eh, sëriñ Mbàkke soxna loo nee na daal soxna si nee na da koo bëggan lool waaye nag ne ne wa sawba hasal xubbi lillahi faqat waaye ne ne yàlla dong dong day moo tax mu soppan kilifa googee bëgg ko ci xolam muy laaj nag moom àtteeb mbëggee di eh, muy àtte ba ndax ومع ذلك ومع هذا الحب فإن زوجها اتفق معها عليه حتى أنه كان waaye nee na itam bëgg googu mu bëggoon sëriñam boobu itamit bi maanaam waxtaane na ko ak sëriñam ba sëriñ bi d'accord na ci ak moom amu ci ak moom benn jafe-jafe ba tax na sax moom soxna si ne ne da daa def ziyaare ji sëñ bi lu bare bare bari waaye sax saa bu daan ziare ji sëñ boobu muy sëñ Mbàkke soxna la moom sëriñam boobu da koy jàppale ca ziare ga maanaam di ko jox wàllu paas ak yooyu di ko jàppale ca la mu koy ziare ci kon bu ko defee lañ ko cay tontu rek mooy dañ ko naan euh, hazal xubbu mahmudun wa mu baax xaala sallallahu alayhi wa sallam al maru maa man ahabba waaw kon dañ ko naan mbëggeel gu mel ni day gu baax la goo xam ne gii gu ñu mën a may nit ki mu bëgg ko la ndax nit ki nga xam ne kii da koo gis mu di jullit doon kilifa ak diine nga bëgg ko ngir noonee mu doon ab jullit doon kilifa ak diine te yàlla dong tax loolu moom bëggeel gu ku nekk sañ na ko may nañ ko ku nekk te sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne al mar'u ma'a ahabba nit ki day euh, moo ko nga xam ne kii da ko bëggan ñooy bokk fu ñuy nekk mooy wax ne rek nit ki ki ngay bëgg su ëllëgee fa muy nekk yaa ngi moom yeneen bokk béréb yu ngeen nekk euh, defe na bëgg nit ki te yàlla rek tax ndax yàlla nga gis ci moom gis mu nekk ku baax nekk di dundal islaam loolee muy def tax nga bëgg ko euh, defe na lu am solo bu baax la ndax xadis bi li ko rotal muy almar u maa man ahabba mooy daa am gan ñu dikkan ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ziyaare si bi yonente bi sallallahu alayhi wa di jàpp ñuy taataan ndox mi muy jàppe di ko naan ak di ko diwoo di tibb bàq ba di ko denc di ko diwoo <coughs> maa ngi jégalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen waaye lii ngeen di def lan ngeen ci jublu ñu ne ko ñun daal bëgg yàlla ak yonentem rek moo tax maanaam ñu def lii loolu taxal yonente bi daal waaw loolu de moom kenn sañu mënu ci dara ndax yàlla dogal na ne moom nit ki moom euh, ku mu soppante rek te yàlla tax ñooy bokk béréb bu ñu nekk xaala cheikhul xadim fal tuxbibil mumina lil imaani wal tuxridil kaafira lil kufran sunu sang bi sa mumina lil imaani ne bi na nga ko bëgg ngir na mu doon ab yàlla tax wal tuxridil kaafira lil kufraani waaye itam ki wedd yàlla na ko bañ ngir na mu wedd yàlla kon defe naan li mu wax ne da koo bëgg rek tayal la tax day mën a dugg fii fal tuhbibil mu'mina lil iman wal tubxiril kaafira lil kufraan dégg nga bu ko defee eh, dana nit ki daal soo koy bëgg jullit bi bëgg ko te yàlla tax mooy ab bu jullit la ku baax la mu ngi dundal islaam tax nga bëgg ko ñu teg yàlla la waaye tamit na ngay bañ te yàlla tax mooy ki wedd yàlla bañ ko weddi ko moom it na nga ko bañ ngir nam bañ yàlla nam ko weddi su ko defee dafay dañ ne dañ naan fa mimma yu'inu mu'mina fa mimma yu'inu mu'mina alxubu fillaah wal buxdu fillaah bokk na ci liy dimbalab jullit mooy ngay bëgg te yàlla tax di bañ te yàlla tax bëgg te yàlla tax mooy ki ngay bëgg da ngaa gis ne kii yàlla dong tax nga bëgg ko nga bëgg ko waaye bañ te yàlla tax mooy da koy bañ ngir ne kii kat dafa wedd yàlla ab yéefar la di ko mooy tax nga bañ ko daal di Sëriñ Tuubaa daal di waxal zur man tuxibu wa in chattat bika daaru wa xaala min dunihi sahlun wa awaaru laa yamnaannaka boobu min ziyaaratihi inna al muxiba liman yaraahu zawaaru xaarim rasul daal di waxaat ne na ngay ziyaare ki nga xam ne kii da nga ko bëgg da nga ko sopp muy ziyaare boobu soxna si doon wax ne moom da koy ziyaare lu baree baree bare ngir bëgg ko bëgg te yàlla tax nga mu ne zur man tuxib da ki nga bëgg wa in shattat bi ka daaru doonte kër ga dafa këram dafa sori waxaala min dunihi sahluna aw aaru doonte yoon wa itam dafa jafe métti sori am ay montagne yu kawe ay xeer waaye itam am ay yoon yu tàll yoo xam ne yi waaye gudd na yaatu na daal yoon waa sori na lu mu métti métti ne ne maanaam du tere na nga dem ziyaare ko ne ne laa yam naa naka boxo dum min ziyaarati ne ne ki nga bëgg sori gum la sori maanaam bu mu tere nga dem di ko siyaare ci ndaxte innal muhibba liman yahwahu sawar koo xam ne kii da nga koo sopp kamu sopp maanaam dafa war a dem di ko siyaare ji lu baree bare zawaaru day bari lu mu koy siyaare ji bu ko defee euh, loolu soxna si laaj mu bëggeel googu daal mu baax la muy lu mu ko may na yàlla rek tax ndax Xaadimu Rasuul bi wax bayit yi euh, ci digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa la doon wax ci bëgg gum ko bëggan te it xañ na amoon na gàllankoor yi mënta dem ziyaare ji ko muy wax ci ay bana bi man yu yuxaatibu ni fi zawri rawdatihi baytaani min xawli man bil urfi am maaru xam ne danee man daal kii ma bëgg muy Seydina Muhammad nii daal te ko ziyaare ji am na ku may yedd ci ñàkk ziyaare ji gi ma ko ñàkk ziyaare muy ñaari bayit yoo xam ne yii mu ngi jóge ci waxi koo xam ne kii lu baax rek lay digle muy ñaari mbir yi ma wax muy zurmantu xiboo in chattat bi ka daaru wa xaalam dunhi sahlun wa awaaru laa yam sa zawaaru defee kon lu am solo la te dafa waxaat ne wa hunaka xawmun qaala cheikhu fi xaqihim tuuba li abdi muridin saadixin lahum bi xidmatin aw bi xaqin aw hadiyat xol bu bi ko sëñ bi bind di ci wax euh, niti yàlla yu baax yooyu bëgguñ leen war a bëgg nga xam ne ne ñooñu moom ku ci génn àdduna sax asamaan yi dañ lay jooy suuf yi dañ lay jooy biddiw yi dañ lay jooy garab yi lépp loo doon kii rek dañ lay jooy ngir bëgguñ la bëggan am solo gu am solo ci kaw suuf euh, ñooñu sëriñ Touba dane Touba li abdi muridin saadiqin lahum ne ne bépp taalibu boo xam ne bii am murit nga gëm nga leen dëggal leen na na am nga ak texe am nga texe googu nag te it maanaam sa taalibe bu dëggu ci ñoom mooy ñett yi nga di leen ca defal leen bexin mati mooy nga bëgg nga di leen liggéeyal am nga texe sa murit wér na aw bi xam xabbil wala nga sopp leen bëgg leen sa murit dëggu na wér na sa texe wér na aw hadiyaati wala wala nga di leen di jox ay hadiya defe naa kon bu nu góorgóorloo ba defe naa ñett yi ñu di ko boole kon moom moom day gën a baax rek ndaxte nee na benn boo ci def rek maanaam sarti mooy am nga texe ga te sa bi wér na mooy bexin matin ndax aw la jëfandikoo bexin matin ci liggéeyal leen aw wala aw bi xubbin wala bëgg leen aw hadiyaati wala nga di leen jox bu doon ne wa la wax da ngay boole ñett yëpp muy doog a waaye fii ni mu ko tëggee mooy benn bu ci nekk rek doy na bexin matin aw bi xubbin aw hadiyaati loolu la aw gi njëriñ fii kon soxna si loolu rek am solo la defe naa bu sukkandiku ci mbind yi nga xam ni moom lañ jëlee ci yonente bi ak li Xaadimu Rasuul wax ci wàllu woowu itam dinañ ci koo doyloo bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah beneen laaj bi ci topp muy soxna ami fay moom itam soxna ami fay juuf soxna su baax moom itam ndeysaan bëgg lu baax rek moom itam mag la mi ngi fii ci dëkk bi wax dëgg yàlla mag la boo gisee liggéey ñu mel nii mu tàbbi ci moom itam ndeysaan ak bëggam lu baax la rek waaye moom de mag la de mag la de moom bëggam lu baax rek ndeysaan bi mu gisee ne liggéey bi doxa rek dane maanaam dugal ma ci maa ko ci dugal noonu sax moom itam ndeysaan ñoo ngi koy ziar bu baax a baax kon ndokkeel moom itam moom itam ci bëggam lu baax di ñaan yàlla dolli ñu ci jàppale bu baax a baax moom dafay laaj ne su jullee ba pare day wax jërëjëf yàlla téeméeri yoon jul eh, jërëjëf yonente bi téeméeri yoon jërëjëf Sëriñ Tuuba téeméeri yoon eh, jërëjëf maam Cheikh Fall téeméeri yoon muy laaj atteeb loolu ndax loolu moom eh, li may jullit bi wala may loolu luñ may jullit bi lu baax la lu ama am solo lay def muy julli ba pare na jërëjëf Sëriñ Tuuba téeméeri yoon jërëjëfe yonente bi téeméeri yoon jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall téeméeri yoon jërëjëf Serigne Touba téeméeri yoon loolu lu baax a baax la lu ama am solo la ko defee loolu dañ koy xamal ne lu ama am solo lu baax a baax la ndax loolu ñuy wax albaaxiyaatu saalihaat yaakaar naa lii ci lay bokk mooy ginnaaw bi nga waxee sa subhaanallahi yooyu nag da ngay góorgóorlu ba soo jullee mu pare nga wax subhaanallahi fanweer ak ñett Euh, alhamdulilahi fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñett soo ko mënee nga mottulee ko laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lahu mulku lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir muy téeméer bu ko defee loolu la ñuy wax albaaqiyaatu saalihaat soo ko defee euh, loo ca tegaat ci lu baax rek moo xam dangay ngay julli ci yonente bi wala da ngay def ay istixfaar wala lu mu mën a doon rek euh, dina ca da koy gën a baaxal comme yi nga wax ne nii moom ngay def su ko defee jërëjëf yàlla ji maanaam foofu ne mën nga koo remplacer bu la neexee alhamdulilah ndax alhamdulilah mooy jërëjëf yàlla la neexee boo mënee baat bi ngay wax alhamdulilah muy téeméeri yoon ba muy téeméeri yoon waaye tamit jërëjëf yonente bi itam bu la neexee mën nga koo wuutal ak salaatu ala nabi bu gàtt goo xam ne bii dañ ne julli ci yonent bi gu gàtt la waaye daanaka bu ko ci gën a am doole amut maanaam ku ko ci gën a baax te gu gàtt la mooy sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin daanaka ñaari baat rek sallallahu ala muhammadin boo ko mënee moom itam nga di ko def loo ca man loo ca man moom itam ndax dañ ne julli ci yonent bi moom dafa baax lool rawatina bu dee jigéen la ah. julli ci yonent boobu sallallahu alayhi yàlla ci boppam dane man man yàlla ak samay malaaka damay julli ci bi daal di leen kon yéen ñi gëm nun julli ñi mu ne nu dee leen julli ci yonente bi kon julli ci yonente bi am solo loolu ndax ne yàlla ak ak i moom ñu ngi nekk di julli ci ba pare nag ne yéen ñi ma gëm doon ay julli kon na ngeen di julli ci yonente bi waaw inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kon boo mënee sallallahu ala muhammadin rek mu remplacé la ko jërëjëf yonente bi ba tey noonu it baax na nag jërëjëf yonente bi jërëjëf Sëriñ Tuubaa kadalik baax na jërëjëf Cheikh Ibrahima Fall ñu jërë sant lañu ndaxte euh, dañ ne man laa yashkuru naasa laa yashkurullaa koo xam ne kii doo sant nit ñi eh, doo sant yàlla te ñii mu wax nii kat defal nañu loo xam ne li maanaam war nañ leen koy sante ndax ñoonu dimbali xalal ñu yoon nga xam ne ci lañ aw di jaamu yàlla mën naa am bu mën naa am jaamu gi kon duñ ko jaamu kon ñu jar di ndokkeel lañu ñuy jar di sant lañu di leen bàyyi xel bu baax a baax a baax nee itam eh, day wax eh, as eh, day tuubal yàlla la wax di ko jéggulu di jàng bismillahi rahmaani rahim téeméeri yoon di ko def ngir ñaanal ak njabootam loolu itam lu baax la tuubal yàlla ak jégglu ko mooy rek boo ko mënee itam ngay wax astaghfirullah astaghfirullah boo ko waxee wala nga ne astaghfirullah wa atubu ilay tey boo waxee ne maa ngi tuubal yàlla te di ko jéggalu ci làng bi nga man ba tey baax na euh, bismillahi rahmaani nga di ko wax téeméeri yoon daal di julli ci bi daal di ñaanal sa njaboot googu loolu lu baax la ndax loolu mooy da nga def tawassul mooy jéggalu nga yàlla dellu ci moom wax bismillahi rahmaani rahim téeméeri yoon muy ab laltaay bu baax a baax a baax bu boobaa lu la neex mën nga koo ñaan sa sa njaboot lu baax waaw lu am solo la loolu itam lu baax la eh, ne na itam dañ koo digal ne ko saa soo julleetee ba noppi eh, na nga jàng fukki xul wallaahu ahad ba mu jeex ak juróom bala ngaa tasak loolu itam baax na ndax li ma la waxal fee rek albaaxiyaatu saalihaat moom mooy boo jullee ba pare moom lépp loo mën a wax ci lu baax rek muy alxuraan la wala Euh, julli ci yonente bi la ay jéggulu yàlla la lu mu mën a doon nga wax ko euh, boole ko subhaanallahi yée ma la waxal mooy tasab yaakaar naa subhaanallahi fanweer ak ñett alhamdulilahi fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñett kon loolu su ko defee lu ama am solo la soxna si yal na ko yàlla gën a dëgëral bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ci topp muy jóge ci sëriñ Basiiru Fay donc bu baax a baax moom itam moom itam ñu ngi ci biir liggéey bi ndeysaan bàyyi ko xel lool di ci ndokkeel di rafet lu di rafetlu taxawaayam ci biir liggéey bu baax a baax a baax kay dafiy laaj benn laaj bu am solo boo xam ne bii moom itam lu jar a bàyyi xel ndax ni mu ko waxe mooy ne ne dafay gis ne daal am na ñoo xam ne ñu ay boroomi xam-xam lañu te fa ñuy toog di wax mën a seen wax ja mën a wër adduna lool muy dañu nekk ca rajo yi di wax. dañuy nekk ca télé di wax dañuy bind ca journal yi di di wax te da ci am ñoo xam ne dañuy ay borom xam-xam la xam ne maanaam dañoo bëgg dañu ne daal xam naa loolu ñu wax doomi njaaloo te doomi njaaloo buñ koy wax mooy ki xam ne kii eh, bi bi ñuy sëy ñaar muy góor jigéen yoo xam ne bi ñuy sëy ñoom maanaam mayu ñu leen daganut seen diggante daganut yaakaar naa doomi njaaloo ku ko dégg war nga koo xam mooy ñaan ñi nga xam ne ni am nañ doom te ba ñuy séq la ñuy séq muy sëy ba ba doom soosu ca maanaam islaam daganalu diggante maanaam mayuñu leen kooku charia dane maanaam doom jooju mënta wërta doon baayam baayam itam waru koo doon nee nag moom gis ne am na ñoo xam ne dañ ne ay borom xam-xam lañu te xam naa dañoo bëgg dindi loolu maanaam teg fa ne kooku mën na kooku mënta doon baayam baayam du ko doon loolu mooy li nga xam ne lii moom la sharia tëral mooy fa inna walada zina laa yaris min abihi azani wala yaris minhu abuhu dégg nga ne ne doomi njaaloo euh, du doon ci baayam boobu nga xam ne bii ci njaaloo la ko amee waaye tamit euh, baayam itam mënu koo doon lii daal mooy li nga xam lii euh, ñun liñ ci jàng ci sharia muy sunna borom ngir yi nga xam ne ñoom la ñuy topp yëpp di jàng seen fiq daal loolu lañu ci gis ne moom doomi njaaloo du doon lu baayam baayam du ko doon bu ko defee nag dana war a am pas-pas bu dëgër ci de bu bu leer nañu ne lii ku ñu ci bëgg a jëlee moom loolu ñu bañ koo diglu li mu wax nag ne ak yàqu bu bari mën na ca am mën na ca ndax nag euh, mën na am ñu ko dégg ñoo xam ne ni loola ñuy wax dinañ ko gëm bëgg koo jëfandikoo su boobaa mooy indi jafe-jafe ak ak wuute waaye lii daal mooy li sax li nga xam ne ni moom lu dëgër la lu wër loo xam ne ni moom mooy li am su ko defee faqad rawa tirmisu tirmisu wa ghayruhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ayyuma rajulin aahara bi xurratin aw amatin fal waladu waladu zina laa yaris wala yurath dañu am xadis bu wér cëng ne seydina muhammad sallallahu alayhi dana wax ne góor day bu demee njaaloo jigéen mooy que bi muy sëy ak moom diggante bi daganut bu ca doom soso ba juddu ne doomi njaaroo la maanaam du doon desu ko doon maanaam du doon desu ko doon mooy du doon baayam baayam du ko doon su ko defee kon loolu mooy li am na nanu gëm loolu te yeneen yi ci des ñu jël ko teg ko dee dañ di jaxasoo ak a werante yow bul te sonn di werante su ko defee li ñu wax euh, mawaaneewul irx dafa am yoo xam ne dañ la ne su amee ci diggante rek maanaam ñaar ña waroon a doonante euh, dootuñu mën a doonante ba ci jëkk mooy euh, adamul istihlaan mooy doom bu juddoo fekk na dafa faatu maanaam juddu yuuxuwut jooyut ñu gis ne kii kat bi muy ñëw moom ñu gis nañ ne juddu na waaye jooyut yuuxuwut ñu xool ko dundut su boobaa kooku ñam war a ko war a ko mën a doon waaw mooy doom ji ba ñu xam ne indaale na ak rool bu ko defee bokk na ca liy tax nit ki duñ donante mooy asakku fii sabuqil mawti ay nit bu ñu waree donante te faatoo loo maanaam mel ni dañoo lab ci géej wala ñu accidenté dee wala dara daanu ci seen kaw ñu dee ñoom ñëpp ñu deyandoo te xamuñu kan moo ci jëkk a dee ñoom ñu dañu war a donante su boobaa ak donante du am seen diggante bokk na ci itam lay tax duñu donante mooy euh, loolu ñuy wax al mooy nit ki nga xam ne kii daa nekk ak soxnaam soxna si eh, ëmb wala mu am doom mu ne ko man de doom bii du sama doom bu ko defee loolu la ñuy wax liaan ci charia muy eh, alxuraan am na ko ca suratul nuur eh, ku dem ca suratul boo demee ca aayat la tàmbalee ca aaya juróom-ñaareel ba ak juróom-ñett ak juróom-ñeent foofu moom la ñuy wax aayatul liaan boo ko jàngee bu fekkee ne dégg nga alxuraan bi di nga xam lam fa wax mooy ci ni ma ko tënkee nii mooy kenn soxnaam daal soxna si am na doom yoo xam ne ji am na ko waaye jëkkëram ne ko euh, kii man du sama doom su boobaa seen diggante moom ñoom ñaa ñoo nii euh, ak euh, donnante du ca am. bokk na ca lay tax du ak donnante doom ci diggante yi nit ñu war a doon de muy alkufru maanaam muy weddi maanaam ab jullit ak ab yéefar bu ñu donnante nit ki loo bokk moom maanaam. nga xam ne bu ngeen doon ay jullit dangeen a war a am doonante bu kii di yëpp jullit kii di ab yéefar ak doonante du am seen diggante beneen bi ci des mooy ak loolu moom defe naa moom mooy ak njaam maanaam ki nga xam ne ki dañ ab jaam la kooku maanaam waru leen a doonante ñu doon du am amatut nag loolu moom defe naa amatut ci des mooy euh, ki nga xam ne kii euh, euh, dafa rey ki mu war a doon ci moo ko tey bu ko reyee ci tey rek dañ naan maanaam mënatu koo doon ndax ah, dañuy jàpp ne xañ na nam ko bëgg war a doon a tax mu yàkkamti ngir bëgg a jël alal ah, loolu lañuy ñuy teg moo tax dañ naan léegi du ko doon su ko defee ah, lee mu doon laaj fële nag muy lëm jëm ci wala doomu njaaloo yàlla maanaam bi muy wax ci foofu ci wàllu njaalo day maanaam nee na sax bu leen ko def waaye demee wala taqrabu zina innahu kaana faaxisatan wa saa sabila yàlla dane bu leen jege njaaloo da wax bu leen ko def waxu ko de ne bu leen ko jege ndaxte moom njaaloo moom ne ne ak caay gu rëy rëy yoon la woo xam ne ku ci aw ci bon rek ngay jëm ci lu bon jëm kon loolu mu wax lu ama am solo la ñu war cee bàyyi xel ci képp koo xam ne ki daal dafa bëgg a saxal ne doomi njaaloo moom lay doon kooku ay waxam buñ ko digg ndax loolu dëppootam li nga xam ne moom la fuqaha yi wax wasalaamaaleykum wa rahmatulah yeneen topp yeneen laaj yi ci topp sëñ Mut Juuf borom alxuraan borom daaray kaamil yi ci biir group bi Mouhamadou Diouf ñu ngi koy ndokkeel bu baax di ko ziyaare ci taxawaay bu am solo ba mu taxa moom itam di wax dëgg yàlla di lijjanti kaamil bi ñuy jàng par semaine bu tegu ci yoon bu am solo loolu muy liggéey bu rëy rëy rëy mu bokk ci liggéey bi nga xam ne bii mooy mën nañ ne mooy li gën a am solo ci liggéey bi ndax alxuraan moom mooy lépp kuy liggéeyal ko liggéeyal ci alxuraan yaa nga xam ne lii moom sëñ bi bëgg moom itam dafay ne laaj yu muy laaj mu ne yàllu lay laaj diggante yàllu ak biral muy laaj fu mu tàmbalee ak fu yem waaw bi ñuy jàng sujudu sahwi yi ba àgg ci buntab man laa yajibu alayhim sujudu sahwi ñi nga xam ne ñii waruñoo sujud sujudu sahwi doonte am na ay njuumte ñu def yoo xam ne yii def nañ ko la wax ba du war ñu sujud da caa limaale façon bii mu laaj nii muy man iqtasara ala ismaai nafsihi jahriyati aw ismaa gayrihi fi sirriyati ne ne kii dafa bokk ci ñi nga xam ne ñi waruñoo sujjóot muy ne ne ki nga xam ne kii dafa war na biral di wax ca kaw ñu koy dégg waaye ma ngay biral waaye daanaka moom dong moo koy dégg xam nga kon loolu biral gu suufe lay doon waaye terewut nag biral moom boo dee biral bi nga xam ne yaa ngi biral am na ñoo xam ne noonu dañ koy jàngee maanaam di jàng di biral te maanaam boo moom mën naa am boo ko jege nit lool doo dégg muy wax ñu ne loolu lu mën a nekk la man iqtasara ala ismaa nafsihi fil jahriyati ki nga xam ne kii bi muy julli dafa war a biral waaye biral googu da ko yemale ci dégg boppam nga xam ne boo ko jege lool mën naa am doo dégg biral loolu lu mën ne la wala ki nga xam ne kii dafay yalu waaye soo ko jegee jegeñee dégg la muy wax loolu itam ne ne lu mën a nekk la lu am la kon mooy maanaam yàlla bu day yàlla bu day mel ne day xaw a jóg moom itam loolu boo koy seetlu defe naa luy mën a am ndaxte am na xam ne ñu mu ne bu ñu yàllu boo làngee ñu dégg ñuy wax dina la wax dina la leer ne moom ak yàllu la bu ko defee loolu daal mooy ci wàllu googu muy laaj muy diggante biral ak yàllu fu mu tàmbalee fu mu mën naa yëkkatiku ca kaw bu dee biral la waaye tam mën naa sooxe ba maanaam boo ko jege ñu sax doo xam ne ma ngay biral te fekk na day biral waaye bu dee yàllu gile itam ne ne fu mu tàmbalee fu mu yem nit ki mën na yàllu soo ko jegeñee dégg muy wax loolu moo lu mën a nekk la ndax dafa dugg ci bunt ak mën naa yi ñi nga xam ne ñu teguñu leen sujudu sahwi euh, foofu la dugg beneen bi ci des mi laaj ni ñu baaxoo di ko def muy euh, di dénkaane ak jur ci niñ koy defee muy buñ la dénkee ak jur bu juree nga jox boroom ki mooman jur ga dénk la ko bu juraatee nga joxaat ko walla bu juree nga jox ko bu juree nga jël loolu lu mu baaxul la maanaam lu mën a nekk la lu ñu may jullit bi la ndax euh, jullit yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jullit ñi lépp loo xam ne ni dëppoo nañ ca ci lu baax loo xam ne ñu ngi koy doxalee seen diggante ci wàllu jëflante te juyowut ak sharia loola luñ leen may la bu ko defee gis nga xam nga booy xool biddaa yee ñu doon wax yooyu yëpp yii yëpp da ciy dugg ndax li ñuy def nii defe naa di di di dénkaane ak jur nga xam ne dañ la naan daal bu ma la joxee jur gi bu juree ñaari yoon yi lay jël nga mu jur ñetteel ba ngay doog a jël wala bu juree benn ma nga jox ma bu juraatee nga jël loolu da ngeen caa waxtaan ba dëppoo ca déggoo ca euh, mu doon lu rafet lu baax loo xam ne lii yéen a ngi koy rafetale seen diggante waaye di ci dimbalante di ci jàppalante jam du déggoo ga am na ca rek lu baax la loolu lu mën a nekk la lu baax la ci façon bu ñu ko defee nag moo xam ki la koy dénk dala naan day jur ñaari yoon ma jël bu juraatee nga doog jël wala mu jur benn yoon mu jël bu juraatee nga jël bu ci mën a doon daal ngeen ci dëppoo lu a nekk lu baax la beneen bi ci desaan muy laaj jàng alxuraan ci am xel waaw moom tamit lu mën a nekk la alxuraanu karim mën nga tiim téere bi nii euh, saw làmmeñ bañ a yëngu sa tuñ bañ a yëngu waaye yaa ngi xam ay bi nga tiim nii ci sa xel mi ne lii nangam la nga di ko jàng cim xel nga xam ne dana xale rek moo koy jël lu mën a nekk la moo nga di ko jàng di yëngal sa làmmiñ bi di di ko yàllu lu mën a nekk la waaye di ko biral di ko wax ci kaw lu mën a nekk la loolu la wax bu ñu waxee an zahril ray bi mooy da ngaa mokkal di tari man nañ ko nekk waaye itam terewut bu la neexee nga tiim kaamil bi nii aay bii nga tiim nii nga jàng ko ci sa xel mi samtuñ du yëngu dara du yëngu te mu leer na aay bi yow moom jàng nga ko ndax dugg na ci sa xel mi ba bu fekkee ni sax xam nga ne alxuraan yi wax moom xam nga li muy wax daal di jàll ci beneen jàll ci beneen loolu lu mën a nekk la moom itam beneen laajam bi itam defe naa mooy bi ñu ciy mujj rek incha allah mooy ndax jigéen euh, am na sañ-sañ ak wut wasila maanaam beneen sëriñ boo xam ne bii mooy doon wasila am daal waaw jigéen day maanaam bu xasee abab sëriñ moom ci li ñu xam ci fi ñu yemagun xam naa du nekk ab gëstu sax dina ci gën amaat waaye daal liñ ci xamagun mooy jigéen gi moom ki nga xam ne kii mooy jëkkëram daal mooy wasilaam mooy doon ab sëriñam ndax defe na bu ñuy jàng lenn ci mbindam sëñ bi muy loolu ñuy wax wasiyatu Penda Joob yaakaar naa la ba ca sëñ bay dénk soxna sa euh, lépp loo xam ne li moom lañu war a defal wasila maanaam sëriñ bi ba muy dénk soxna sa dane ko loolu de defal ko sa sa sëriñ boobu yi waaye sëriñ bi nu mu ma rameen waaye da ko ne zawjuki attaqi la ko wax maanaam topp sa sëriñ bi nga xam ne bii bu ragal yàlla la ne mooy jihaat ak jigéen ñi waalami anna jihaada niswati fii taati zawjati taqiyi jihaat ak jigéen mooy topp sëriñam boobu ko yàlla boole bu fekkee ku ragal yàlla la kon foofu bu ñu fi dee sukkandiku te gisuñu mu jàll ak moom feneen joxoñ ko feneen sëriñam boobu la ko joxoñ daal kon dañuy jàpp ne euh, jigéen moom sëriñ bi ñu ko may mooy wasilaam mooy wasilaam nag ci ne na nekk ku ragal yàlla ko xam ne ki jaamukatab yàlla la di ko def loolu yàlla digle di ko tere li yàlla tere waaye bu mu koy digal ci bànneexu bakkanam ba tax mu koy digal lu mu a def wala mu di ko tere ci bànneexu bakkanam loo xam ne lii waru ko ko tere lu war a def la su ko defee wasilaaw jigéen daal jëkkëram mooy mën a doon wasilaaw waaye dem di jokk ci keneen daal loolu moom gisaguñu fenn teslaa yam ci li ñu jàngagoon foofu ci dundam sëñ bi kon yal nañu yàlla doole jàppale bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi ñoo ngi siyaare ñëpp di jégg bu baax a baax di yàlla nu wañu suñu jëf bu rafet suñu jaamu yàlla a jéggal suñu rëcc rëcc jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yàlla gën noo jàppale ci liggéey bi bu baax a baax a baax a baax mu dungam mi ko sos moom itam xalaat koy yàlla defal ko lu koy njortam ndax euh, liggéey bi si bi rek la bëgg te liggéey suñ moom lu mu toll rek doyut fu mu àgg rek doyut kon yàlla na yàlla doole jàppale jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa